يكفيني أدال kon ñi ngi woy ci melo melo yi yàlla suñu borom yi xam ne yu war a gëm la war fas bokk na ci li ma wax ne wa qudratun maa iradat maa iradatin lahu wajaba taabudanahu wal tujil lahu muy kàttan ak nammeel ñaari melokaan la yoo xam ne dafa war ci jëm yàlla suñu borom kon nanga ko jaamu te màggal ko kàttan mooy kàttan gi nga xam ne ci lay amee lu mu bëgg a amal nameel gi nga xam ne rek mooy lépp lu mu bëgg mu am lu mu bëggul du am kon ñaari melokaan la yu war ilmun xayaatun maa samin wa basar maa kalaamin wajabat li dil xam-xam melokaan la bu sunu borom xam-xam bu war ci sunu borom ak jës ak wax yooyu yëpp ay mbir la yoo xam dafa war ci yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi kon loolu boo ko boolee muy juróom-ñaari mbir melokaan yoo xam yëpp yu war la muy qudra di kàttan iraada muy nammeel ilmu xam-xam xayaatun muy ak dund sama muy dégg basar gis kalaam wax yëpp ay melokaan la yu war ci jëmmi suñu borom waxee loolu nag am na yeneen melokaan yuñ ci jële te mooy nekk gim nekk ku am kàttan nekk gim nekk kuy namm ko xam ne day namm dara bëgg ko nekk gim nekk ku xam nekk gim nekk kuy dund nekk gim nekk kuy kuy dégg ak kuy gis nekk kuy wax yooyu tam yenn melokaan yoo xam ne day jóge ci melokaan yi njëkkoon wax ndax bu ñu waxee waxee xasee wax rek dañuy xam ne kon yàlla su borom xaadir la bu ñu waxee iraada kon yàlla su borom murid la bu ñu waxee ilmu kon yàlla su borom aalim la mooy borom xam-xam la bu ñu waxee xayaat dafa war ci moom kon xayi la moom mi ngi dund bu ñu nee sama dafa war ci moom kon samia la mi ngi dégg bu ñu waxee basar kon basir la waaye mutakallim la itam kuy wax la boo ko boolee mu nekkaat fi yeneen juróom-ñaari melokaan nga boole ko juróom-ñaar yi jàlloon kon boo boole juróom-ñaar yi ak juróom jàll ak juróom-benn yi njëkkoon wax lépp ñaar fukki melokaan la lay jox ñaar fukki melokaan yooyu yépp nag yu war la ci jëmmi sunu borom yoo xam ne jullit bi nga xam ne dafa gëm yàlla war na koo fas ni muy gëmee ne yàlla sunu borom ku am la euh, dëggal am gi ba noppi noonu la war a dëggalee ne melokaan yi yu war la ci moom yu ànd ak moom la te benn manqué wu ci benn bu ci nekk rek mu fas ko ci xolam loolu itam lu mënta